jëfal bu baax ni ni leen ko waxe woon léegi rek fépp foo xamante ne ña àndoon ak Cheikh Ibrahima Fall jamono yi muy nekk cees wala àndoon na ñoom feneen ñëw fii cees wala it ñu fekk ko Thiès incha allah dañ fa dem wan leen la nga xamante ni mooy seenub liggéey lu jëm ci gàmm gi waaye gën leen a leeral seenub diggante ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Ibrahima Fall loolu moo ñu indi nag fii nga xamante ne ni mooy kër sëñ Abdoulaye Yaqin ñu fekk fi ki nga xamante ni mooy soxna Saybatu di xalifaam fas yéene séq ak moom li nga xamante ne mooy waxtaan ànd ak ki nga xamante ne mooy sëñ Abdoulaye Ndaw waaye ak koo xamante ne nag boole nañook moom ku yor kàddu kër gi ñu indil ñu ay leeral si jëmm jooju nga xamante ni sëñ Moussa wax na ni si marché Cheikh Ibrahima Fall na ko yaa tax ba Abdoulaye Niakhib lam mi ndigal far ko upp la gaay xiro moko xap tabax ne keur di joxe loolu la leen fas wan dañ leen bàyyi seigne ablaye ñu daal di tàbbi ci keur gi mu waxtaan ak soxna si inshallah allah ablaye waye kep kum la bolal rek ci liggey bi ngi nit ñi gëna xam kam moy Cheikh Rafal ak ñam andalon fi Thiès inshallah allah ñu wal leen ko jaa ngeen jëf kon bismillah seigne ablaye ni ngeen ko gisse rek fi ngi fii ci euh, seigne ablaye yaqin euh fekk fi ki nga xamne ne khalifam di soxna Seybata mu bolé ñoo ki nga xamne moo koy moo ko yoral kàddu gi ngir mu yëkkati ñu tuuti rek ay kàddu yu jëm ci jëmm jooju nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina moo ko defar fii ci Thiès comme niñ koy waree ci mboole buntu kër yi ci gàmm gi nan lañu doon dundalee gàmmu ak kan mooy Serigne Abdoulaye Yakhine euh, ak lan lañ mën a wax tuuti rek ci ay ay ay jëfam ak li nga xamante ni euh, tax na tey ñëpp dëgmal si ko muy Yakhine ji. ñëw ngeen si nag. barab bu mucc ayib barab boo xam ni si yàlla suñu borom subhaana wa taala wàccuwaayam si lislaam ak si yoonu murit nekk na lu màgg lool ndax jëmm ji fi nekk di Mouhamadou Abdoulahi li yaqinul mubaarak ah, may faral di wax ni li yoonu murit di yaatu yaatu ku mel ni sëriñ bi ak Cheikh Ibra gis nañu loolu ñu tuddee seeni askan waaye yonu murid tam gis na loolu ñu tuddee seeni wayjur bu sama borom dogalee nag ba nga ñëw si jëmm ju tedd ji doo gis ay wayjuram doo gis mbokkam waxoon na ba keroog àdduna ji tukki du yàgg yàgg yàgg nee na ba kenn ñëw fii wax ni man ak moom ñoo bokk waaw ni abdu faqat waaye su fekkoon dafa yemoon si loolu nag kon dina ub bopp yu bari si la leeral ni mi ngi bàyyi si sayir fu ñuy wax ardul ijaaz ardul ijaaz tey soo ko doon natt mooy fii tey Arabie Saoudite mooy lépp lu ëmb makkatal mu karam ak madinatul munawaratu jëmu ji tedd jii foofu la fekk baax si atum 1880 si la gën jamono si kanam waajuram yu tedd ya di Abdullahi Chérif mooy waajuram bu góor ak soxna Aminatu Zaqra mooy waajuram bu jigéen Euh, bi saa borom mu gën jamono nag turu Muhammadu la indi kon mooy wundu turam boobu ñu naan Muhammadu Abdullahi Muhammadu ibnu Abdullahi gàmm gii nag da ci daan def lu nekk xeetu berne bu nekk daan na ko ci def waaye su gudd gàmm mu dem ba sori day génn daan sant yàlla war na leen yéen ñi ànd ak man sant yàlla war na leen yenn ñi ànd ak man. waaw yàlla nañ ko sama borom fayal bu baax. kon di woo ñëpp nag si bis bu tedd bii nga xam ni incha allah dafa xat waaye bu ñu yàlla demee ba yóbbu ñu si lii lépp dinañ ko saraa euh, ba ñu gën a xam dëgg dëgg dëgg kan mooy Seydina Ibrahim kan mooy Mouhamadou Abdoulahi al Yaqin kan mooy Cheikhul Khadim. dundal gi nga xam doon na ko dundal gàmm fii ci fii ci Thiès ak euh, ni mu doon dundalee gàmm ndax gis nañ say discours yu kii yu baree ba ngay def euh, ngay ngay firi jës bu ci bisu ci ci bisu gàmm dañ koy bàyyi xel. waaw waaw. ah borom moo yónnee si man iya ndaw. ndaw dikkee na sa borom nee del jàng gis bu. waaw waaw sa borom nee del jàng gis bu. moo tax ma di ko jàng. nu daan dundalee gàmm gi. mu koy nuyu lépp lu man def ko. dañuy def lu man ak lu mu mënut la yéene rek lépp la ñu daan def lépp lépp lépp lépp rek. baatu laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah moom lañ koy fanaane waaw waaw bernde waaw waaw lu ñu ci lu baax def ko. kon mbokk yi ñu ni ngeen ko gisee rek ñoo ngi fii ci kër Soxna Saybata moom euh, Serigne Abdoulaye Yakhine ànd ak mboolem euh, équipe bi euh, ngir ñëw fii ni ñuy dundalee gàmm gi ci mbooleem buntu kër yi mag ñi nga xam ne ñoo ànd ak maam Cheikh Ibrahima Fall. laa ilaaha illallah.